julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ma wax ni tànk yi sëriñ bi fàttali na ko léegi tànk yu ñu yàgg a def la parce que moo war bépp jullit ci Sénégal moo war bépp citoyen Sénégal parce que màggal gi occasion la pour màggal màggalab liggéey màggalab taxawu màggalab suñu wéyjur suñu sëriñ si Ahmad Bamba nga xam ni dafa def jusqu'au sacrifice suprême pour lu taxawal diine ak Sénégal dans leur honorabilité dans leur dignité moo tax ñëw fii ngëneel la pour ñun njëriñ la pour ñun moo tax chaque année ñu am plaisir def ko et taseek autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk ku nekk ci ñoom nag ñu sàkku ñaan pour réew mi sàkku ñaan pour jàmm dem ci réew mi sàkku ñaan pour que problème yi dund nit ñi nit ñu di dund li nga xam ne mooy tolof tolof yi askan bi jaawal jànkonteel ñu réglé ko li ci dal xel mooy que ni ñii dañu dégg képp ku fi ñëw xam nga li sëriñ bi sëñ Muntaxa di dox pour que jàmm am pour que tolof tolof yi weesu vraiment suñ ko gisee daañ ko rendrale hommage pour ce tout cet engagement et cet investissement Serigne Bass nag moom dafa doon kenn ci ñun doon am taxawu boo xam ni ñu ñëpp ko rafet dama naan ko yow toujours porte étendard nga parce que porte parole mooy ki gën a fës ci nit ñi bokk te moo am ci taxawaay bu rafet taxawaay bu baax e ñu di ko encourager di ko féliciter di ko màggal fu ñu mën toll en tout cas bëgg nañ trop parce que li ñu ñaan tey suñuy kilifa ak suñuy sëriñ mu jëm ci réew mi mu jëm ci askan wi ci jàmm ak li ngeen xalaat te kenn tudd ko loolu lépp sëriñ bi wax nañ ko ko et incha allah ku nekk ci ñoom la nga war la nga man di ko ci dox parce que loolu moo leen war te door nañ ko moo tax ñu am espoir